nag mooy ñu mu ko waxee woon rek mooy ñëpp toroxluwaat dellu ci yàlla tuub jégglu suñu borom ngir lii nga xam ne suñ borom def na mu tàbbi ci àdduna si tàbbi ci biir Sénégal yàlla ñu ko fi indi te muy mbindaaf comme ñëpp yàlla jëliwaat ko fi mu fàttali ñu baax nag la Sëriñ Tuubaa waxoon ba peste ba ñëwee ci njaarim ba ñëwee di ko ci ñaanloo te leen waxoo leen yàlla suñu borom ñu ko fi indi waxtu ko jeexalee dana jeex ba bis xam ngeen histoire bi ñëpp nam jëme day gudd waaye mu xëy ne suñu borom xamal na ma ne jàngoro jooju fi indi woon yàlla jëliwaat na ko fi mu tàggoo kon nag sëriñ bi nee na mi ngi teewluwaat mooy rek di ñaan suñu borom mi ko fi mu jeexal ko di fàttali rek nag li nga xam ne waxoon na ko fa mooy li ci lislaam santaane nee na kon loolu ñi nekk bitim réew ñii di ay jullit ñii di ay mbokki taalibeem mu xam seenu jàmbaar ak yërmaande jëm am ci ñoom xam la ñuy dund ak fañ nekk nee nañ xam ne fàttewu leen ñoom ñëpp mu ngi leen fàttaliku di leen ñaanal suñ borom defee leen jàmm muusal leen ci ba ñibbisiwaat jàmm ñi nga xam ne yàlla dof na itam ñu jot a ñëw ci biir réew mi nee na ku ci accepté koo xam ne ñëw nga ba ci biir nee na na nga dem seetlu sa bopp ndax moo gën jàngoro ji di gën a law di wàlle ndax addis bi dafa wax ne laa darara wala dirara kon noonu lool nee loolu mi ngi koy fàttali ñëpp ku ci ak seeti nga fexe ba dem ca ñu war a seet ñu xool la ba xam ndax tekkiwut na ku jóge biti réew ku nekk loolu dalaa dal waaye mu ngi koy fàttali ñëpp nee na itam mi ngi fàttali ñëpp itam dénkaane bi nga xam ne bokk na ci sëriñ bi mujj wax ci njaaram na ne yéen a ngi jëm ci jamono joo xam ne yette ci tax a noppi jekki jaamu yàlla nangoo liggéey doyloo nga am doyloo nga am muy muy juróom yëf yi nga xam ne sëriñ Tuubaa daana ko santaane neen lool nag jamono jii ci raw kon nee na ñëpp ñu ngi leen koy sant lépp loo xam ne daal dana musli ci jàngoro ji wala daa tax muy muy muy wàlle képp ku ko mën a wattandi ko na ko def te lépp nu ñu delloo ko suñu borom la ca dellu ko waat it nag mooy nee na mi ngi sant bokk julli ji di sant bokk taalibe yi rawatina nag njabootu Cheikh Mouhamadul Fadil di ko teg ci loxol sëriñ Abul Barke mi nga xam ne mooy kilifa kër ga ndax bi nga xam ne màgg gi ñëw na fi mu ñëw ba ci moom waxtaan ak moom la mu waxtaan ak moom ba sëriñ bi wax ko kàddu mu ko wax tam wax loo ko see Cheikh Ahmadou Badawi mi mu wax ko àdduna sépp jëfandikoo ko sëriñ bi nee na mi ngi ko ci sant di ci sant mboolem njabootu Cheikh Ahmadou Fadil di xam ne eh, loolu rek lañ séntu ci ñoom ndax ku tudd Cheikh Ahmadou Fadil sa xel dem ci bientu bu nu wóotee bil iraada waaye nag dëggal nañ ko ndax la ci gën a yéeme wax naa ko ba démb njabootu Cheikh Ahmadou Fadil gépp kenn ku ci ne dangaa dugg ci sa néeg bu gën a ruqe sax ngir bañ ni ñi gis la jàng alxuraan jàng xasida teraanga yi ñu tasaare ko ci digg bi kon sëñ Yaxma sëriñ bi nee mu mi ngi yóbbanteem ñëw ci sëriñ Abo ak mboolem njabootu sëriñ bi yëpp di leen sant bu baax di leen gërëm ngir xam na loolu itam xam na ni yéen a ko bokk ndax bu leen di santit eh, da leen da koy jotali rek waaye cant ga moom tàbbi ci biir ndax bu leen sant rek sant na boppam la ca desaat nag kon mooy kàddu yi nga xam ne war naa jëm ci xew-xew bi nga xam ne moo xew fii jamono toll ndax sëriñ bi nee na mi ngi fàttli ne suñu borom dafa wax ci alxuraan atiiu llaha wa atiiu rasula moo tax dañoo xam ne ci biir àdduna lañ nekk am ñu ñu fi bokk ñu fi bokkal dëkk ne ci biirum réew am ñu fi bokkal dëkk kon nag lépp loo xam ne war na nit ci kum bokkal am réew war na di ci koo xam ne bokk nag nit ci dëkkandoo àq joojee dañ ko war a sàmmonte ngir loolu mooy li nga xam ne lislaam santaani na ko loolu nag ay kàddu la yoo xam ne eh, ñi ko war a leeral li nga xam ne sëriñ bëgg na ko ni ngir bañ kenn di loroo fii ndax fii moom sëriñ Tuubaa lam ñaanoon suñ borom defee na ko ko woon filo ba wal balaya kullaha anha wa tay wa tayib shurbaha wa aklaha kon moo tax suñu xeddal na naa a gudd ndax sëriñ bii mooy Cheikh Mamadou Mountakha ay kàddoom yónni na ko Cheikh Mamadou Bassir waxee na ko ni ko sëriñ bi bëggee woon li ci des itam ñi seq liggéey bi kenn ku nekk la nga ci war a leeral sëriñ Bassir wax na ko da ko leeral xanaa kon di man ñaari baat képp laay mën a wax yoo xam ne ma bokki taalibe yi laa koy jottali rek ñi ma soññ sañ a soññ ñun murit yu ndaw yi rek nin war di gàttandoo ndigal ak buñ ko déggee nin ko war di fas yéenee jëfe ci sellal mu mel ne lenn ndigal du tuuti waxtu ndigal jóge bu nekk taalib bi moom déglu ndigal ak dégg ndigal ak jafe ko la war a def te ndigal li itam lu ñor sëriñ bi la moo tax sëriñ bi itam tolluwaay bi bi mu demee nii mu woo ñim bokkal liggéey bi ñëpp waxtaane wu ñoom ba noppi moom ay kàddoom yónni ko sëñ Basiru ci biir waxtaane mit wone woon na ne am na ci loo xam ne dana ci fàttali fa sëriñ bi nekk tam di fa fa yéene nekk waaye am na ci loo xam ne da koy diisoog ñi mbokkal liggéey bi laaj leen ci seen xalaat te loolu mel na ne ba tey dellu si waat na ko ci na ko lislaam bëggee waaye delluwaat dellu siwaat na ko ci xel mu rafet mii ak doomu adama laaj waaye dellu siwaat na ko ci xam ne bokk mi yi mu bokkal liggéey bi ñoo bokk bëgg bokk Pastef kon day diisoog ñoom ndax seeni xel doy na ko te xam na ne lu koy defaral rek la ñuy waxtaan ak moom donte danañ ko delloo lépp ci Pastefu taalibe bi duñ bëgg a wax duñ bëgg a am xalaat waaye sëñ bi faaw mu déglu leen wa shaawirhum fil amri ci alxuraan loolu mënta ñàkk kon bu loolu amee nun bokki taalib yi nga xam ne noonu la sëñ Muntaxa yónn sëñ Basiiru ci noonu nu bàyyi xel ci li nu sëriñ Basiiru wax te bàyyi xel gi mooy mbir mii nii mu doyee te sëriñ Muntaxa bëgg ñu sàmmoonte ci ak ñaar yooyee mooy ñuy jaamu yàlla waaye ñuy wattandiku waaye ñuy bàyyi xel ñunu yàlla booleel ñuy kilifa jamono àdduna bi lépp day tax ak déggoo mën a am ba lépp mën a yomb lépp mën a rafet kon nu na fas yéene lépp lu ci dégg ñu nañ ko defee nii kenn ku ne na ci delloo sam xel xam ne defe ne ko sëriñ bi bëggee moo nu mooy li ñuy jariñ kon nanu déglu ñi nuy wax li ñu nu wax ne nii lañ ko nii la ko sëriñ bi bëggee ñu defe ko ni ndax mooy gën a rafet mooy gën a matale ñoom ñëpp nu fas defe noona maa ngi yëkkat sama kàddu ci turu kilifa yi di jot li ndigal lii sëriñ bi wax muy xew-xew yi xew ci réew mi xew ci àdduna muy a gi te kilifa yi jël ci ay matuwaay ngir bëgg yàlla musal ci nit ñi lu ni ko yàlla santaane li ci des ñu bàyyee ko suñu borom mi nga xam ne mooy dogal te di ko ñaan mu teggi ko ci dam gën a gaawee xam nañ ne ndigal yàlla yi julli ci la bokk moo ci gën a màgg te julli mbooloo koy def te mel na ne kilifa yi yëg nañ ne ay mbooloo dajee ci barab lor ji mën naa tasaaroo sëriñ bi waxtaan ak ñi ñu dénk liggéey bi bañ gis ne mën nañoo def ndigalul yàlla li te mën nañoo moytu li waa kër docteur yi di wax moo tax mu wax ne jumaa ja incha allahu taala ña fa nekk nga xam ne fa la ñuy liggéeyee te li masabu Malik wax muy fukki nit ak ñaar rek buñ dajee ak bu buñ jullee ajuma wér ña fa nekk mat nañ loolu mbaa ñu ëpp ko kon ñooña am nañ ndigalul des fa di jiit julli waxtu juróom ak ajuma ji su ko defee ndigal yàlla yi sax na lor ji nga xam ne ni it ñu ngi koy séenu ci mbooloo yi daje woon ci barab ba ñu moytu ko ndax sunu borom mi tegee jàngoro moo santaane faju mii tege ay nattu moo santaane fegu moo santaane sabablu sëriñ bi nag bëgg ñëpp mucc waaye li jiitu ci mucc gi mooy saxal ndigal yàlla li kon fexe ba na ko yàlla bëggee ñu defe ko waaye lépp luy sabab ak lor ñu moytu ko loolu nag yeneen jumtuwaay yi mu war a àndal ci matuwaay yi ñu war a jëli dinañ ko jël ci set geek yi ñu war a def yëpp loolu fekkoon na sax waa daayiratu Muqaddamatul Xidma tàmbali woon ko ba ñi fi doon teew ci waxtu julli xam nañ ne matuwaay yi ñu doon jël mën a ko doon jël ba ci foo xam ne sax mën na ne ñëpp àgguñ fa loolu nag sëñ banque yi soññee ak bëgg ñu gën ko bàyyi xel loolu daal mooy li mu waxoon ne nañ ko jot li ñëpp fa hôpital bi nekk dëkk ko asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu noonu kilifa yi teew ñu yëkkati sunu ñëw di ko teg seen loxo ñu tegaloon si loxo Sëriñ Muhammadul Muntaqa xafisahullahu wa raa di joxe kàddu yu néew yoo xam ne ndigal ak xam ne ko waaye moom li fi jàll yóbbaale na li ñu waroon a wax lépp ah, salaatul jumaati nag mooy li nga xam ne baat yi ñuy wax ci la koy jëmale sëriñ Mbàkke Abdourahmaan wax na bu léegi jumaam fukki nit ak ñaar ak iliman ci lay fasoo ah ak lu ca dolli ko kon nag mën na ni ñi sëñ bi jox ndigal ñu nekk ci biir jumaa ji ami liggéey bi seenu bi lim jégg na loolu bu baax a baax a baax fukki ak ñaar yi tax jumaa fasu ànd ak iliman bi lu ko ëpp am na fa kon nag ñu sëñ bi xam le ne kenn ku nekk fu la waxtu wi fekk mën nga ko julli sa tisbaar di xamal mbokk julli yëpp ne ni ko seen bi waxee incha allahu taala fa seet nañ ko no dund noonu ngir lii xew ci àddina bépp te ñëpp di ko dund sëñ di ko dund ñu ko ñëpp di dund sax mu ëpp leen ci ndax mu bokk jabooti ñëpp kon tax na ngir watoonte ak sàmmoonte ñu ni ko jamono laaje moo xam ne dafa bëgg ñi nga xam ne ñoo liggéey ci jumaa ji rek ñu nekk fa di taxawal liggéey ba ba jamono yi di weesu incha allahu taala kon waxtu julliwu jot da noddu waaye ku dégg noddu gi tam na nga xam ni am nga ndigal jullee fa sa kër